Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah ñi ci di nuyu eh, eh, di leen ziar bu baax di leen fàttali yéen seen programme comme ni ngeen ko xamee chaque semaine ñu si dal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga di tradi praticien nekk fële ca diwaanu Kër Massar chaque semaine dina ñëw fi nag ñu xool benn feebar boo xam ni eh, dafay ci deuxième partie bi mu ñëw nag wax ay solution yoo xam ni ku bañ feebar boobu sonnal la wala mu dal la nan ngay def ci wàllum prévention pour bañ mu dal la ak ñi mu dal nan la ñuy di ay muy di ci ay solution pour yu leen di euh, saafara kon na xam naa euh, vidéo tey nag dañuy ñëw ci feebar boo xam ni wala sax mën ne ko di nekk feebar parce que xam nañu ne mooy ndey feebar muy constipation constipation nag moom mooy euh, seere seere léegi professeur nag balaa ñëw ci question yi dañ lay bàyyi nga nuyoo après ñëw ci question yi jëm ci wàllum constipation asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sunu mbokk internet yi nga xam ne ñëpp ñu ngi suivre euh, comme ni nga ko waxee rek euh, constipation moom defe naa ni feebar la boo xam ni dañuy faral di wax ni mooy ndeyu feebar yëpp waaw parce que mooy feebar yu bëri moo leen di jur en général mm-hmm. parfois dama koy faral di wax ni tubaab li mu gën a ragal mooy seere ak soj té ñun yooyu moom defuñu ko fébaré ñun mom ah. pour ñun yoy du fébar yoy du dara <laughs> mais parce que li mëna indi conséquences yi mo bari donc motax tax mom euh, moom dafa ragal seere dafa ragal soj waaw bu ko defee nak euh, xamna naa ci lool daal lañ bëgg waxtaan tay inshallah wa inshallah rabbi euh professeur bëgg nañ am constipation exactement manam moy la séré moy la ban condition lañu mëna waxé wala nit ki di mëna wax ni dama séré waaw pap fi ñuy waxee ni dama seere mooy en général mhm. euh, dañuy faral di wax ni nit ki war na di dem toilette mhm. su fekkee nag euh, li muy dem toilette bariwul mhm. maanaam bu fekkee scientifiquement dañuy wax ne bu fekkee c'est inférieur à trois fois dans la semaine cest à bu gënee tuuti ñetti yoon ci semaine bi nit ki mu ngi constipé maanaam mu ngi seere maanaam semaine bi yëpp bu fekkee ñaari yoon nga ci dem toilette wala benn yoon wala sax xëy na ñetti yoon wala sax demoo ci toilette maanaam bu gënee néew ñett rek. Mhm. dugg nga ci constipation. Mhm. loolu nag ci semaine bi ci semaine bi semaine bi waaw. comme nit ko nit koo xam ne toog na une semaine. une semaine dem toilette nekk ay ñaar wala ñett. waaw kooku seere na kooku seere na ci constipation. waaw ah, loolu xel na ko loolu la ñuy <laughs> wax ñetti yoon ci semaine bi. <laughs> est que gën ngaa gën euh, inférieur à trois selles par semaine. rek mhm. dugg na ci euh, constipation. su fekkee ñaari yoon la.

waaw si mën na am ginnaaw loolu mën na am yeneen yeneen mhm. exemple muy tey nit ki day dem toilette mhm. bu demee toilette toilette yi day wow hmm, d'accord toilette yi muy génnee mhm. day wow du tooy daal ah, loolu bokk na ci symptômes yi nga xamante ni constipation dina ko joxe bokk na ci symptômes yi parfois tamit ki nga xam ne dafa constipé mën na ànd ak biir buy metti ah. douleur de ventre xam ne dañ biir bi parfois daal day metti muy wala muy jàmm lay demee noonu. Mhm. mais ci biir loolu tamit mën na nekk mën na am gaz. Mhm. maanaam gaz mooy ballonnement wala mu am air exemple ci biir mhm. bi. loolu tamit eh, bokk na ci symptômes yi wala ci signes yi nga xamante ni. constipation dina ko dina koy dina koy indi. donc yooyu ci wàllu biir bi la. et indigestion. Euh, constipation dina ko indi indigestion mooy boo lekkee du gaaw a rees. donc loolu tamit ki ki constipé. Mhm. Eh, signes yooyu mën na mën na ko daal nga xamante ni li mu lekk. Mhm. dafay dafay nekk rek quoi. waaw ah, parce que dafa am lu war a génn génn. génn lu li mujjee ñëw. mën a dem fi mu war a dem. Mm, waa mi mhm. mu amaat beneen bi ñuy wax perte euh, manque d'appétit wala perte d'appétit. nga xamante ni nit ki dootul ab dootul bëgg lekk normal daal. maanaam du lekk lekk. Euh, pour mu nu ko mën a waxee du am lekk. du am envie lekk. waaw du am appétit daal. du am appétit parce que tamit parfois day ragal comme que lu ci biir bi génnul mooy ñu ko waxee sànq. Mm. kooku du xam nga du mën a lekk parce que am na lu fi war a nekk génn leneen a war a ñëw du ñëw. ñu mm-hmm. ngi mel ni rek tey boo demoon ci benn dispensaire exemple. Mm-hmm. benn malade dugg di consulter bu fi génnul keneen amul droit dugg. waaw bu fekkee kenn nekkee nag. Mm-hmm. patient bi war a dugg day toog di xaar <laughs> donc noonu lay demee fii ak génnul nag kee di dugg mm-hmm. bu defee nag li ci biir bi su mm-hmm. pour nga lekk day day day xaw a jafe waaw day jafe mm-hmm. donc yooyu tamit da ciy am léegi bëggoon nañ à part loolu bëggoon nañ ci comme euh, ndax bokk na ci parce que dégguma ko wala sama xel nit ki di dem toilette am jafe-jafe toilette di génn day dugg wala du forcément. si day dugg ci cadre boobu parce que yooyu ci séento bi lay nekk. da day nit day dem toilette. pour mu guenné toilette manam pour sel yi génn manam mhm. déchets yi day am jafe-jafe mhm. am ci si ñoo xam dañuy dem bay onk mhm. donc diko pour diko pousse légui pousse bobu sax après euh, parce que bu ñëwaatee ci benen point bi da nga gis ni pousse bobu muy pousse ak onk bobu pour mu pour mu pour toilette yi parce que newoon day waw man wow indi na indiwaat yeneen effet mana dem ba indil ko ay fissure anal, parce que mana dem ba anus bi fi nga xamanteni fi la déchets yi wara jaar mën na dem ba xar exemple mm-hmm. ndax fett quoi mm-hmm. ndax euh, li fi war a jaar mm-hmm. dafa dëgër ba pare seere maanaam mu forcé léegi force boobu nag mën na ko dagg exemple ah, force pour mu pour mu génn moo tax onk yooyu tamit parfois baaxul ci dem toilette xam nga euh, mosoo gis ku biiram di daw muy onk <laughs> waaw bariwul <laughs> moom affaire mooy génne boppam mooy génne boppam waaw waaw moom boo matul sax moom mooy génnal boppam léegi bu defee nag ba yow yaay def effort pour mu génne di ko pousse di ko mhm. nag léegi pousse boobu force boobu koy def day dem ba kii bi anus bi mhm. day am problème mhm. bu ko defee nag parce que ci gros intestin bi maanaam ci butit yooyu dafa am ah. eh, déchets yi day nekk foofu wow léegi wow boobu nag pour nga génnee ko nag mooy indi oh, mooy indi problème boobu du du du du du glissé facilement ci parois yi quoi. Uh-huh. comprendre la. donc noonu lay demee quoi. loolu uh-huh. seen normal uh-huh. léegi bëggoon nañ xam euh, léegi loolu yan conséquence la mën a indi ci ci ci ci yaramu nit ki quoi yan conséquence léegi conséquences yi mën a indi yu bëri na Pape parce que mën a dem ba indiwaat ay feebar. mën na dem ba indiwaat ay feebar. bokk na ci feebar yi exemple mooy comme ni ñu ko waxee woon rek déjà fissure anale bi ñu waxoon. parce que euh, toilette yi mënta génn mhm. nga forcé ko mu euh, kii bi anus bi mooy nga demee toilette xar fett mhm, mhm. wala mu dem ba indi hémorroïde surtout hémorroïde moom première conséquence bi ñuy wax première constipation toujours rek fu mu am xamal ne hémorroïde moo ci topp en général day jur hémorroïde day jur te hémorroïde moom gis nga ni dafa bari ci dëkk bi léegi bu ko defee nag ñi nga xamante ne dañuy constipé lu bari dañ xam ni fa ñuy mujj boo moytuwul mooy Eh, amé hémorroïde mm-hmm. donc non lay motax ñi amé hémorroïde ñëpp sax bo séto tamit dañuy mm-hmm. constipation mm-hmm. donc yoy momit ci fièvre yi nga waaw waaw xel na xel na waaw bu ko parfois nit ki tamit buy amé eh, ki bobu muy muy ñëw eh, constipation boobu en général buy ñëw nit ki dem toilette mën dem ba ak ay ay am saignement waaw mu dem ci cadre fissure yi nga wax fissure yi ñuy wax deret ji génn donc nga nga gis ni ci ci toilette yi day taq deret hmm. donc même ci ko di nga gis tamit nit ki mën na am eh, kii mën na amee eh, constipation. Hmm. mu ànd ak vomissement ay wàccu. Hmm. tamit da ciy bokk. mën na dem ba tamit indi ko perte de poids. maanaam nit ki amee constipation ba pare commencé di. di jeex. wala mu indil ko fièvre yaram bi di. tàng. donc loolu tamit da koy da koy bokk ci yi nga xamante ni mën na ko indil ci feebar. Mm. mais mën na ko indi tamit yeneen feebar. Mm-hmm. Euh, maanaam tey il faut yooyu yëpp bu amee sax nga nga dem ci sa médecin. Mm-hmm. mais mën na ko indil li ñuy wax ay cancer de rectum. cancer waaw wala cancer du côlon yooyu yëpp mën na ko mën na ko indi. Mm-hmm. moom euh, moom see seere bi. donc en général ñi amee seere bu bëri mën na ñu dem bu tamit dañuy am cancer du rectum wala cancer du côlon. Mhm. donc loolu dañ koy faral di dañ koy faral di dem di ko di ko am quoi. Mhm. mën na dem ba nga xamante ni moom it ki amee euh, seere. Mhm. mën na dem ba indil ko li ñuy wax insuffisance rénale. Hmm. waaw mën na dem ba indil ko insuffisance rénale. <laughs> waaw non dafa dafa doy waar dafa doy waar parce que pap xam nga li war a génn su génnoon oh. dafay dafay nëpp maanaam ci waxin dafay yàgg te yàgg boobu du yoon mhm. léegi bu ko defee nag parce que xam nga dañuy wax les organes dafa am les organes épurateurs mhm. yoo xamante seen rôle mooy dañuy dégager mhm. di nettoyer di génne léegi suñ demee nag ba li ñu war a nettoyer mënatuñ ko nettoyer mu nekk fa yeneen ak yeneen ñëw bu yàggee day indi problème tey gis nga oh. exemple tey ni ma la joxee exemple mooy benn mbalit boo xam ni dafa war di dem chaque jour nga koy nettoyer xam nga du am problème ah, foofu nee la butéel jën yi ci kër gi ñu toggee pare waaw kay bàyyi ko foofu gis nga bu yàggee da ay sax lay am wala yeneen yeneen day yeneen yoo mu indi problème nga noonu lay am effet yooyu muy am nag constipation bi noonu lay am moo taxoon ci introduction bi newoon naa la tubaab yooyu la gën a ragal muy mhm. constipation mhm. ak sec mais ñun defuñu ko sax feebar ñi moom africain surtout sénégalais dafa buñ buñ tëddee rek dee nañ. dëgg donc loolu da ci da ciy am insuffisance rénale boobu mën na ko indil. Mhm. mën na ko indil des troubles euh, neurologiques euh, c'est-à-dire mën dem ba am neer yi am ay problèmes. d'accord mooy ay problème xel tam. waaw problème mu neer rek yu demee noonu quoi. Mhm. neer yi mooy sidit yi quoi. Mhm. gis nga kon constipation. waaw ah, nga yaakaar neurologique ngay wax sax. Ah, neer yi laa wax neer neer day indi problème yooyu yëpp quoi donc mm. nit ki am problème mu rein wala yu demee noonu donc yooyu te yooyu tamit vice versa la ku am feebar yooyu tamit mën na dem ban am constipation mm. mais constipation yooyu tamit day indi yooyu jàngoro yooyu ñu fi ñu fi lim sànq d'accord donc mm-hmm. neer yi mooy li tax nit ki di yëg ci yaramam waaw mooy neer mooy neer d'accord léegi xam naa dañoo inversé question yi. Mhm. parce que wax nga cons ci ci ci ci conséquences yi muy mën a. mën indi parce que dama déggoon benn comme li ni mu wax mu ne. Mhm. sibbiru mooy ndeyu feebar. Mhm. loolu la waxoon moom. da ngaa tënk mu ne sibbiru. la. seere seere. constipation seere mooy ah. ndeyu feebar yi. Ah, parce que nee na fee nee feebar bëri yi daal nit ñi bu ñu ko toppee ba topp am na yoo ci mun kat daanaka lu ci baree bari daal. ci nit ki ay seere la lay def lu xeeb ko. seere yooyu juróom ko ba leen feebar. mais feebar ko def feebar bi créé ci moom fekk seere bu évitoon seere mën na mën na mën na kii voilà léegi li ñu koy inversé mooy maanaam euh, li nga xamante ne nag exactement mooy yi seere boobu lan moo koy causé mooy tax daal nit ki lekk ba pare. Mhm. lekk gi war a lees nekk lu tooy génn mhm. normalement. normalement ñëw rek wow ci biiru nit ki nangul génn. waaw kay waaw mooy li nga wax Pape parce que dama yaakaaroon ne parce que moo waroon nekk première question. waaw waaw parce que eh, eh, cause yi war ñëw après symptômes yi après conséquences yi. <laughs> waaw. ci symptômes yi bàyyi nga laaj rek ma tontu li ngay laaj rek baax na heure bu xam mais xamoon naa ñëw soo ko laajul woon it ma indi ko ci uh-huh. kii nu mu uh-huh. ci bu mooy tëj. mais cause yi en général mooy. Euh, aliment manque d'aliments équilibrés. équilibré. exemple comme ni ñuy wax toujours lekk goo xamante normal, normalul lekk gi bu équilibré wul rek mën na indi mën indi constipation te foofu lu ñu fi wax mooy dafa am ay vitamines yoo xam yaram bi daf koy soxla. léegi la carence de ces vitamines là bu fekkee yaram bi soxla wul amul vitamines yoyu wala manké nako ko mën na indi mën na indi. constipation exemple tay nit ki dafa soxla di lekk loo xamante mhm. les aliments riches en fibres mhm les aliments riches en fibres bu fekkee tamit nit ki du ko lekk lu bari. Mhm. day indi constipation ndax yaram bi manqué na ko. Mhm. fruits yi yeeg xeet boobu. waaw kay yooyu da da ciy da ciy. léegi légumes yi waaw légumes yeeg yooyu. Mhm. léegi yooyu dafa ci am yoo xam dañoo riche en fibres. léegi bu fekkee nag yow doo ko doo ko utiliser. yaa ngi topp ceeb bi ceeb bi rek exemple. pat yi <laughs> da ngay dem ba da ngay da ngay da ngay. seere ah. constipé wu parce que am na benn vitamine boo xam ne wala benn ferñeent. bu sa yaram soxla te joxe ko. ah te mu war a yombal res yombal waaw. léegi bu ko defee nag loolu day indi seere bi mhm. non seulement nag loolu en général. Mhm. amoo ko. Mhm. mais tamit nga topp pat yi. parce que ah, pat yi tamit day yokk day yokk seere. maanaam li su ko nee les les aliments farine exemple nga xam day am farine wala yu demee noonu. donc yooyu tamit boo koy utiliser. day dem ba nga xamante ni day indi euh, seere. ay ceeb ay ceeb ay mburu ay mburu ay pat ay pat waaw vermicelle. xet yooyu day indi day indi kii hmm. day indi seere ay vermicelle macaron ak yu demee surtout ñu nekk ay Italie ak Espagne surtout defe naa ñoom ñoom lañ gën a tax parce que ñoom pat lañuy dund lu ci bëri gis nga hmm. beneen bi dañ ko bëgg dañ ko bëgg waaw dañu bëgg pat <laughs> pat yooyu waaw moo tax boo fa demee ñu yàqale ci waaw kay te pat yooyu léegi day indi seere mais gis nga mag ñi biñ daan lekk cere bu am laalo hmm. daaw ñu seere cere laalo exemple oh, laalo laalo gis nga non xam naa bu ñëwee ci remède yi dinañ ci ñëw solution yi léegi bu ko defee manque de boire aussi nit ki du naan mm-hmm. lu mu war a naan naan bu bari du ko naan mm-hmm. am ñoo xam ne mën nañoo xëy suba ngoon duñ naan dëgg de xaaral sax oh. <laughs> waaw am na ñoo xam ne mën na waaw léegi nag naan boobu nga xamante ni au moins nit ki war na naan lu bari oh. ci jour bi naanoo ko bu yàggee ndox boobu euh, nga mooy manque sa yaram mm-hmm. te rôle bi mu waroon def tamit dootu ko def ba finalement nit ki mën na indi constipation donc bu ko defee dañuy dañuy faral loolu xel mën a nangu la parce que am yow boo ko w dafay kay waa kay comme bu fekkee doon naan lu bari di nga ni muy amee cohérence day am cohérence day am cohérence gis nga ngi noonu parce que biir bi dafa dafa soxla ndox mi ndox buy lubrifier lubrifier affaire bi waaw léegi yooyu c'est vrai ngi mel ne rek tey boo ko boo ko doon jox misaal rek boo doon jox misaal rek exemple bon dañuy jox misaal rek pour nit ñi comprendre quoi tey booy amoon sa benn euh, sunguf waaw def ci ndox tuuti mhm. ndox mhm. boo yëngalee day nekk pat waaw ah, waaw mais boo doolee mu gën a yorom nga doole mu gën a yor nga doole nga da ngay ba yàgg mu nekk ndox kese kese gis nga ah, noonu xam nañ li nga waaw kay léegi nag bu ëpp <laughs> léegi bu defee nag noonu lay noonu lay noonu lay defee quoi donc yooyu ay explication rek pour nit ñi mën a comprendre quoi même même bu demeewul noonu c'est-à-dire waxin la non li nga wax ni noonu lay demee professeur <laughs> non kay lay demee. non net bi gars yi dañu mën a weddi de da ngay wax lii ñu yaakaar. ñu naan non mais li nga wax noonu lay demee de. <laughs> te buy defar tey euh, beñ tey. Mhm. mu def ci tuuti ndox. Mhm. farine bi bu kii buy def buy yëngale yëngal da ngay après day obligé dolliwaat day obligé moo xam meew moo am ndox loo ko mën jax sax nga obligé dolliwaat. Mhm. nga yëngalaa gis mu commencé mu dëgër ba léegi nga dolliwaat. ba mu mel ni nga bëgg nga bëgg waaw kay. plus ndox maa ngi ñëw plus muy gën a yoolal waaw kay mi ngi noonu bu dee beñ dugub da ngay def noo xam ne sax day ndoxee xam ne bu ñu koy sot dañ koy rek ko waa tey gis nga mi ngi noonu. li nga wax ay téere non noonu la demee noonu la demee donc nag kon ndox mu bari da ciy baax léegi ki dul naan nag day constipation daf koy daf koy yomb. Mhm. donc am na ay médicaments ay garab yoo xamante ne tamit ñu koy jël par parfois dañuy constipation mën na leen a see mën na leen a yomb. Mhm. mooy les médicament garab yi nga xamante ni pour anti dépress dépresseur la. Mm-hmm. nga xam ne ñi nga xam ne dañoo amee problème mu xel. Mm-hmm. garab yooyu ñuy naan parfois. Mm-hmm. mën na dem ba bu bare di indil leen jeef ay ay seere. mën naa di nga xam ne anti douleur la. nga xamante ni tey ay douleur moo ko tax a jog nga faj métti. waaw yi faj nga ci jël lu bari mën nga dem ba nga xamante ni eh, day indi seere. ñi nga xam ne dañoo amee épilepsie. parfois waaw mooy di say yooyu mm-hmm. garab seen garab yooyu ñuy naan parfois tamit euh, mën na dem ba indi ba indi leen seere jafe-jafe seere ak yu demee noonu yi nga xamante ni c'est des médicaments anticardiaque yi nga xam ne pour affaire cardiaque ak yu demee noonu mm-hmm. wala médi waa mm-hmm. wala médicament yi nga xam ne pour sëqat la pour mm-hmm. mm-hmm. nga xam ne saqat moo ko tax jot yooyu tamit boo ci jëlee lu bari parfois. Mm-hmm. mën nay dem ba indil nit ki. ay ah, jafe yooyu sous forme ay effet secondaire la effet secondaire la wala effet indésirable wala secondaire non effet la kay. Ah, secondaire <laughs> nga leeral <laughs> ci benn vidéo. waaw donc gis nga. donc bu ko defee loolu mooy conséquence su garab yi quoi gis nga. Euh, bu ko defee yooyu day indi ay problème ci wàllu constipation. beneen bi mooy le manque d' activité physique. Mhm. ñàkk yëngu. Mhm. ñàkk yëngu boobu tamit. Mhm. day dem ba nga xamante ne day indi li ñuy wax constipation. donc xam naa surtout ñi liggéey liggéey toog. waaw kay gis nga gis nga ñi liggéey liggéey toog. gis nga kon waaw koy li ñuy wax gis nga day ñëwaat. manque d' activité physique boobu ñu toog toog lu bari liggéey toog bu bari. day indi constipation. te en général boo xoolaatee les mêmes personnes ñi nga xam ne ñooy constipé wu ñooy amaat hémorroïde. donc ñi ah. nga xam ne dañuy liggéey liggéey boo xamante ni dañuy toog lu bari. waaw bureaucrate yi waaw pour ñu am hybride day yomb. muy tailleur yi chauffeur yi ak bureaucrate yi. am mm. seen bureau rek la ñuy toog. Mm. comprendre pour ñu am hybride day yomb parce que toujours daal ñu ngi toog. Mm. mais tamit day lay reflété ci lay manque d' activité physique yi ñu wax. nga xam ne nit ki def ko donc nit ki toujours war na di. ñaq na muy liggéey liggéey toog def sport muy def ñaq wala muy dox. ainsi yooyu da ciy baax. mais toujours pas boo gisee feebar yi di yokk rek li may wax noonu la boo nekkee patron. exemple ni nga ko mën a jàppee Sénégal ah, yor sa oto mhm. dugg sa oto taal génne sa buntu kër dugg sa oto dem sa bureau dugg sa oto duggaat sa bureau toog mhm. wàccaat duggaat sa oto mhm. ñëwaat sa kër donc finalement journée bi yëpp doxoo daanaka waaw te ba te am na nu ñu demee sax bureau bi climatisé oto bi climatisé ak kër gi climatisé donc bu yàggee gis nga

Mhm. dafa nekk loo xamante ni moom daanaka dafa baax ci doomu aadama mooy mhm. sport rek mhm. donc boo koy def feebar yu bëri du la du la yàpp donc loolu daal lañ lay woon ci constipation def naa walla ah, kon na leer na macha <laughs> na kon xam naa nag euh, euh, dañuy bàyyi ba deuxième partie bu ko fee ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, pré surtout prévention incha ah. allah rabbi ñi nga xam ne bëgguñu di constipé nan lañ war di dundee parce que constipation lu garaaw garaaw lu garaaw waxal sama invest affaire sama bëgg toujours ñu ñëwoon ci garaawaay bi mu garaaw mhm. soo ko ñëw ci maanaam euh, li koy joxe li koy xamee nii garaaw na benn garaaw bi mhm. dina toog xool ak ah, kat war naa xam kon lan moo koy joxe effectivement mais léeg-léeg boo ñëkkee ci li koy joxe moo bëgg mhm. léegi moo tax dama bëgg di invest question <laughs> nit ki mën a seetaan commencement vidéo bi ngay expliqué waaw kii mooy li mu daal <laughs> mu garaaw. garaaw gi mu garaaw gi ah ndekete garaaw te man ma kon xaaral ma déglu. pour a moytu. léegi bu ñu xamul mooy li may wax rek li mag ñi daan wax rek gis nga àddina. moom loolu laa wax sama élèves yi toujours loolu laa leen wax nit ki li muy bind ci kayam rek na ko xam. cest à nit lu mu war a def rek. na ko xam na ko xam. loo xamul rek. ñu nax la ci day yomb. wala mu indi la conséquence day yomb. exemple li mag ñi wax rek am ko te xam ko. Mhm. ñàkk am ko te. te xamoo ko mhm. nee na ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën. xam nga tey ki am waxoon nga ko fi un jour ki am boyetu or. te xamu ko. mën na ko sax sànni. ndax xamu ko négliger <laughs> mais ki xam or te amu ko. <laughs> sax moo gën ndax bis bu ko amee dina ko téye. donc loolu la ko mu ngi naan leen bu ko defee noonu lay demee. lépp loo gis rek. Mhm. xamee gi moo gën. ñàkk ñàkk xam. effectivement effectivement dëgg wér nga wax. kon xam naa ñu jox euh, ñi ñu suivre ñëpp rendez-vous deuxième partie bi ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy euh, prévention yi. ku mm-hmm. bañ a constipé bañ a seere nan nga war a dundee ki nga xam seere da koy dal tamit nan la war a def ba seere boobu dañ ci moom. kon professeur ñu lay remercier. jërëjëf macha allah.